Pas de Dieu, pas de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pas du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs.

ñaari jën yéesu dina def lépp ba mu dundal lu ëpp juróomi junniy nit muy di kemtaan gu mag waaye kemtaan guy wone doole yàlla ci mbindeef yàlla rekk moo mën a dundal nit ba mu suur te yëgle googu dinañu ko fàttali tey yàlla rekk moo mën a dundal nit mu dundal ko ba mu suur nañ ko ubbil suñu xol ndax lim ñuy may ñu mën koo jëriñoo suñu biir suñu meesu tey suñu l'Eucharistie dafa am itam xew-xew bu ci ànd mooy bésu fàttaliku juddu les jeunes chrétiens engagés ak ñoom dañu bëgg a gërëm yàlla ci ki mu doon ak lu muy maye waaye itam dañ koy bëgg a ñaan ndax mu gën ñoo taxawu ci lum ñu sas te ñu war koo mëttali ci biir àdduna sasu nekk ay bàkkaarkat lañu na njëkk a ubbi suñu xol yàlla te ñaan ko yërmande buy setal te di sellal ndax mees bi l'Eucharistie mën a doon luy dundal ku nekk ci ñun ak bés bu nekk je confesse à Dieu Tout-Puissant Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés nous conduise à la vie éternelle.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 Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal Salisha et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Son serviteur répondit, Comment donner cela à 100 personnes Élisée reprit, Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Alors, il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres ta main, rassasié, Tu ouvres ta main, Seigneur, nous rassasié, rassasié. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici.

Il est proche de ceux qu'il invoque, de ceux qu'il invoque en vérité. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici bind waa mbokk yi maa ngi leen di dagan man mi ñu jeng ngir borom bi ndax ngeen dox bu jekk ci yoon wi leen yàlla woowee na ngeen suufeelu ba fu suufeelu yem te lewet di muñalante tey baalante ci cofeel na leen jàmm ji boole ngeen bokk bennum xel naka lañu leen woowee ngeen bokk benn yaram benn bokk yaakaar noonu it la amee wenn yaram ak mennum xel benn yàlla rekk a am nge benn gëm ak benn batise benn yàlla ji di baayu ñépp ji di yilif ñépp jaarale ko ci ñépp te dëkk ci ñépp baatum yàlla de Jésus-Christ dafa jàlloon ca weneen wàllu dexu Tibériade gi ñuy tudde itam géeju Galilée fekk ndiiraan gu rëy topp ci moom ndege li ñu gisoon kawteef yi mu daan defal jarig yi yéesu nag yéeg aw tund toog fa ak ay taalibeem booba paak xewteg yaawur yi jegeñ na ba yéesu yëkkatee ay gëtam te gis nit ñu bari agsi fi moom mu ne Philippe moo fu ñu mën a jëndee mburu ndax ñii am lu ñuy lekk dafa ko doon seetlu ndege xamoon na xel li mu naroon a def Philippe tontu ko ne suñu jëndoon ñaari téeméeru dinaaru mburu du tooy kon sax ba nekk mën cee jot as lëf kenn ci taalibe yi André magu Simon Pierre né ko am na fii benn xale bu yore juróomi mburu ak ñaari jën waaye lu loolu mën a faj ci ndiiraan gi ñi day yeesu ne taalibe yi toogloo leen nit ñi fekk ñax mu bari amoon na ci bërëb bi ñu toog ñoom ñépp waroon nañoo mët juróomi junni booba yéesu jël mburu yi gërëm yàlla séddale leen ña fa toogoon mu def it noonu ak jën yi ba ñu doyle ba ñépp suuree mu ne taalibe yi dajale leen desitu mburu mi ndax dara du ci sanku noonu ñu dajale leen daldi ci feesal fukki pañe ak ñaar ba nit ñi nemmeekoo kawteef gu yéesu defoon ñu ne kile di yonent bi bare bu war a dikk ci àdduna si waaye ba yéesu xamee ne dañu ko nara jàpp fal buur mu daldi wéyati moom kenn ci tund wa en ce temps-là Jésus l'autre côté de la mer de Galilée le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffira pas, ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les ramassèrent et remplirent douze paniers avec les morceaux de cinq pains d'orge restait en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. C'était Jésus. Tous Jeune chrétien engagé. gis nañ ne que depuis jedi yéen a ngi dem di dikk à travers ay activité yi ngeen sampal seen bopp lii yëpp ngir ngeen màggal bésu juddu seen groupe ñu koy rafetlu lool te di ci ànd ak yéen ci bés bi mbaa ci bés yi mais buñ koy rafetlu nekkul ne rek da ngeen di fàttaliku buñ koy rafetlu seen taxawaay ak seen engagement moo tax seen engagement lu dëggu ci yéen te seen taxawaay rafet na lool te bu ma juumut seen rafetaayu taxawaay ak seen fulla ci seen engagement tax na ba ngeen wàll ñeneen feneen waaye nag sas bu rëy moo tegu ci seen ndodd sas woowu sas lan la sasu exemple que vous puissiez demeurer des exemples pour group boo gis ne dañuy def ni yéen restez toujours l'exemple pour les autres waaye suñu ngërëm ci yéen day ànd ak ñaan lu baax du mos a réer léeg-léeg da def lu baax nit ñi duñ ko gis léeg-léeg da def lu baax coow bu ñaaw fekk la ci léeg-léeg dangay def lu baax mais duñ la ci sopp waaye leen téye leen fi ngeen téye jàpp leen fi ngeen jàpp te ngeen jiital ci ngëm gu mat sëkk quels que soient les vents et les tempêtes vous resterez toujours debout que vous n'avez pas le droit de vous coucher yal na leen yàlla fay seen xolu engagement waaye yàlla itam seen engagement mën ñoo wàll wàll ma man mi doon choriste wàll ma man mi doon scout wàll ma man mi nekk ci yenn kuréel yi te nekk mu fa dara lu dul tur rek choriste la te doo ñëw choral scout nga te balaa ngay ñëw fii événement bu mag moo am lecteur lectrice nga balaa nga fi ñëw feet bu mag la foog naa euh, suñu engagement war naa weesu loolu alors maa ngi leen di transmettre reconnaissance su communauté paroissiale bi yépp te yal na bésu tey jur ci yéen ay gracia yu bari ci seen biir xol ak ci seeni biir njoboot jooyloo ngeen ñu bari bu ñu gisee seen takkute ak coono bi ngeen di àndal bu ñuy gunge suñu mbokk yu gaañu ndaxte nit ñi mënuñoo comprendre ay jeunes ñu tool ñi ci yéen ngeen am seen liggéey seen occupation et même parfois vos soucis soucis quotidiens peut-être ñàkk xëy waaye saa yu ñu leen tàllalee loxo taxaw ngeen te defe ngeen ko nu mu gën a rafete alors lii lan la ciy merci yàlla la bàyyi mu dogal lu ko neex yal na leen yàlla fay tey nag ci suñu lewañ dafa am lu doy waar xam ngeen ne ba fii boo leen defee très attention Mathieu moo ñu doon gunge ci récit yu ñu doon méditer ci dimanche yi alors xam foog naa ne yéen a ngi fàttaliku yéesu bu mu tànnee fukki apôtres yi ak ñaar les douze apôtres mu tànn leen waaye itam mu yónni leen demal leen ma ci dëkk yi ngeen waare fa lewañ sil baat yàlla bu baax bi bu neex bi gannaaw bu ñu demee ba dellusi ñuy nettali ku leen yónni woon Jésus lépp lu ñu dund lépp lu ñu dajeel waaye itam kéemtaan yu ñu def ci turam dale ko dimaasu tey ba ñeent yuy ñëw sang mu sell mi mooy ñëw cette fois-ci mais chapitre 6 pour dimbali ñu ñu gën a xóotal suñuy ñaan ak suñu méditasion ci le thème du pain de mburu dund gi te dégg nañu ci évangile mba yéesu kéemtaan bu mu def mu jël juróomi mburu ak ñaari jën mu may ay junni junni nit ñu lekk ba suur bu ñuy liir l'Évangile dafa am ay caractères yuy génn waaye benn laa ci bëgg a jàpp ak yéen muy luy taalibe dëgg taalibe mooy koo xamante ne dafa am ku muy topp di ko topp ndaxte dafa gis ci moom njëriñ di ko topp ndax mën a roote ci moom xam-xam gis-gis ak dundin waaye tey ci ndiiraan gi doon topp yéesu am na ñu ko doon topp ndaxte wëral na seen kanam ñu feebar am na ñu koy topp tey ngir seen biir te ndeysaan daf may fàttali benn époque dans l'évangélisation de no communautés xam ngeen ci ci paroisse yu bëri mission après paroisse ay tubaab ñoo ko yore woon tubaab yooyu dëkkuwuñu fi dañu jege woon seen dëkk en Europe ñu ñëw fii ndax église mën a samp waaye ñooñu bu ñuy ñëw indi nañu seen xam-xam waaye itam indi nañu seeni poos te léeg-léeg sax jiital nañu seeni poos yéen a ngi fàttaliku ñu doon woowee kerceenu sëmul ñi nga xamante ne xëy na ay kerceen lañu woon waaye lu leen gën a iital xam ngeen lan la làbbe tubaab yi luñ doon joxe nekkoon na sëmul nekkoon na ceeb nekkoon na dëwliñ nekkoon na lu ñuy sol ndeysaan ñooñu dañ doon woowewu kerceen waaye seen ngerceen teguñu ko woon ci ngëm ci am am lañ ko tegoon moo taxit it bu ñu demee ba tubaab yooyu dem seeni doom wuutu leen ñoom ñu lem seen dëbës dellu fu ñu nekkoon kerceenu sëmul ndeysaan man dund naa ci benn expérience boo xamante ne dafa daw yaram dama nekkoon ci paroisse waaye bu ma ñëwee dañ doon préparer paroisse bi ndax tubaab yi fi nekkoon yu fi nekk bàyyi paroisse bi ak labbe yu ñuul ñi bu ñu demee ba taxawal lépp ñu woote woo communauté bi yépp ndax ñu expliquer leen que léegi ñun tubaab yi dañuy dem waaye nag yéen seeni doom ñoo ñu fiy wuutu ay bés boobu lu ma dégg bés boobu lu ma dégg dem naa ba ba ragal sama bopp à cause de xalaat yu may dégg te jógewut ci kenn ku dul ci sama yaay ci sama baay ci sama mag ci sama rak ma propre famille waaw waaw ñii moom ak ñii diine bi dina daanu ñii duñ fi mën a taxawal dara luñ doon wax fan lañ ko teg ci luñ doon jot ñi alal ñi lekk ñi mbubb mbaa boog ci xam-xam lu tax ñu doon génne ay baat yi ni mel c'est parce aussi da doon wone ñun léeg-léeg lan lañu ñu gën a soxal ci topp bu ñuy topp Yeesu Krista ci xam-xam ak xel mbaa bokk ci ceeb buñ may may ci xaalis buñ may may Krista ngëm mooy tax ñu koy topp te ngëm googu ci mayu yàlla la bokk te ci topp googu ñu koy topp nekkul ne amuñu dara lu ñuy def déedéet dañ koy def ndaxte yàlla moo ñu tànn waaye bëgg a wéeri ci ñun ndax lu mu bëggal àdduna mën a antu waaye jaarale ko ci ñun nous devons prolonger être le prolongement de l'évangile de Jésus Yéesu ñu mu dundal tey fan la doore ci benn waay bu amoon juróomi mburu ak ñaari jën kon boog lépp lu yàlla bëgg a defal àdduna si ci doomu aadama la koy jaarale waaye doomu aada aadama googu xolam dafa war a set dafa war a lewet dafa war a yaatu alors nit ñaan yàlla ngëm gu takku ngëm gu doy yàlla saa su nekk la ñuy woo ci moom jaarale ko ci doomam Yeesu Krista ndax ñun suñu bopp ñu mën di wàllu suñuy moroom tous ces dimanches Saint Marc a eu la générosité de nous rapporter les récits qui relatent le choix des douze hommes que Jésus s'est choisi appelés apôtres. Leur mission, leur envoi en mission est le succès de la première évangélisation. À partir d'aujourd'hui, Saint Jean, à travers le chapitre 6, prend le relais à Saint Marc pour nous orienter vers le discours sur le pain de vie. Le miracle de la multiplication des pains se déroule sur l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule, précise Jean, suivait Jésus. Cette grande foule a certainement, à plusieurs occasions, vu Jésus opérer des miracles. Cette grande foule a certainement vu Jésus guérir des malades, expulser les esprits mauvais de ceux qui en étaient possédés. Cette foule non seulement a été témoin, mais porte une conviction. Seul l'homme de Nazareth, Jésus, peut délivrer l'homme qui est malade, tourmenté qui cherche le bonheur, qui a faim. Cette grande foule, qui faisait environ 5000 hommes, n'était donc pas à la recherche de banalités ou de routines quotidiennes. Mais cette foule, cette foule nombreuse, inquiète. Lorsque Jésus demande aux disciples, où pourrions-nous acheter du pain pour que la foule puisse manger. André, dans sa spontanéité, signale l'existence de cinq pains et de deux poissons. André moo am fit André moo am fit waaye ginnaaw fit googu il portait une foi insondable xamoon na waa ji mu àndal bu jógee ku fi xiif di nga lekk Jésus prit les cinq pains qu'un jeune garçon avait avec lui il les distribua et tous mangèrent à leur faim ce fut un moment merveilleux une multiplication de pains cependant il faut noter que ce n'est pas la première fois qu'un tel miracle soit relevé dans l'histoire sainte. Et la première lecture en donne la preuve. En effet, le prophète Élisée en son temps avait fait de même dans un temps très reculé. D'autres histoires de ce genre jalonnent l'histoire biblique. Avec Jésus dans la nouvelle alliance, l'histoire se répète. Il prend les pains et les distribue. La faim. Avoir faim est une réalité dans notre monde. Cette faim peut être le manque de pain quotidien. Cette faim peut être la recherche de justice et de paix. Cette fin peut être le manque d'amour. Alors, que pouvons-nous faire face à ces manques? Multiplier le pain, donner plus d'amour, œuvrer pour plus de justice, comme le fit Jésus. Ce serait bien l'idéal. Remarquons un fait qu'on ignore souvent et pourtant qui est d'une importance particulière. Jésus n'est pas parti de rien pour distribuer de la nourriture à la foule. Il s'est plutôt servi de quelques pains, quelques poissons. La leçon qu'il convient dès lors de retenir ici est donc Si nous n'avons rien, nous n'avons rien à donner. Mais si nous possédons quelques miettes d'amour, alors, avec tous ceux qui acceptent d'œuvrer ensemble, une multiplication de pains sera possible. Notre première responsabilité est de connaître ce que nous avons. La seconde est de savoir que nous devons partager avec ceux qui ont Il est question aujourd'hui pour nous de prolonger le miracle de Jésus, celui de la multiplication des pains. Pour ce faire, il est d'abord nécessaire de serrer les besoins disponibles, les besoins des uns et des autres, d'avoir la même disposition de cœur que Jésus lui-même. son humanité, nous rejoint pour que nous soyons, nous rejoignions sa divine miséricorde. Il n'y a donc aucun secret, aucune recette, simplement l'amour et la fraternité. Nous n'avons rien à inventer. Nous devons seulement être attentifs et saisir la distance d'être là au bon moment avec quelques pains et quelques poissons. Ensemble, nous multiplierons l'amour à donner. Il convient, chers frères et sœurs, de rendre présent le Christ dans ce que nous avons à dire et dans ce que nous avons à faire. Si nous partageons le pain ou le travail, pensons que c'est bien lui-même qui préside à cette œuvre. Lorsqu'il nous arrive de faire l'heureuse expérience de la présence du Christ. Ne soyons pas trop vite pressés d'en parler à ceux et celles qui n'auraient pas encore bénéficié de cette expérience. Chers amis, rendons présent le Christ dans nos gestes d'amitié. Alors, le pain sera multiplié. et le goût du pain eucharistique que nous allons partager sera celui de Dieu pour tous, lui le vivant pour les siècles des siècles. donne à chacun de ses membres la foi et l'humilité nécessaires pour que leur vie soit un témoignage de ton amour pour l'humanité. Seigneur, nous te prions. Dieu de justice et de paix, nous te prions pour tous les dirigeants politiques et administratifs de notre pays. Inspire-les par ton esprit de discernement afin que leur prise de décision soit pour l'intérêt commun. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tous les mendiants, les sans-abri, les chômeurs et les personnes endeuillées. Délivre-les de leurs maux pour qu'ils puissent retrouver réconfort et espérance en toi. Seigneur, nous te prions. prions pour notre communauté paroissiale et nous tous ici présents. Nous te prions, Seigneur, que cette Eucharistie consolide nos liens fraternels afin qu'animés par ton Esprit Saint, nous formions un seul corps et une seule âme. Seigneur, nous te prions. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour l'accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.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

En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Benjamin et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui, sont, ont fait la, ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils Jésus le Christ. par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur toute gloire pour les siècles des siècles.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 Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Amen. la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dans votre homélie, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de multiplication. Par ricochet à l'évangile, où le Christ a multiplié cinq pains et deux poissons. mais en ma qualité de jeune chrétien engagé, je vais additionner ces cinq pains à ces deux poissons pour en faire ressortir le chiffre 7. Sept ans que nous sommes maintenant dans l'église de Saint-Paul de Grand-Yoff. Sept ans d'engagement et je dirais que quelle coïncidence. Mais cependant, le hasard n'est pas chrétien. Puissions-nous être jeunes chrétiens engagés, de vrais disciples, des disciples qui portent du fruit et que nos actes puissent impacter dans notre communauté et dans l'Église tout entière. L'un des premiers mots que nous avons appris en tant qu'enfants et merci. En effet, cette expression de gratitude est une véritable marque de respect et de considération pour celui à qui nous l'adressons. dans la parole de Dieu, l'évangéliste Saint Luc nous dira dans son chapitre 17, au verset 17 et 18, ces mots. Alors Jésus prit la parole en disant, Tous les dix n'ont pas-ils été purifiés Les neuf autres, où sont-ils Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Oui, rendre gloire à Dieu devant toutes les grâces, les encouragements, le soutien, les querelles et mésententements. Voilà sept ans que nous demeurons sous la protection divine auprès de vous. Sept dans la Bible, frères et sœurs, a une signification symbolique. car il représente la plénitude, la perfection, la puissance, la totalité, la gloire. Alors bonne fête à nous, jeunes chrétiens engagés de Saint-Paul. Gloire à Dieu et merci. Et qu'en ce jour de Jéricho pour nous, que les bénédictions du Seigneur nous donnent la grâce de faire un marchepied de tout ce qui nous empêche d'avancer vers la voie du vrai service du Christ. Je ne peux terminer mon propos sans pour autant remercier tous ceux qui ont œuvré à la bonne marche de ces sept années et de ces 72 heures. D'emblée, je citerai l'abbé Alphonse Biremdou, notre ancien président Antoine Mendy, ainsi que tous les anciens sans qui tout ceci n'aurait pu exister. Le président actuel Jean-David Mendy, ainsi que vous les membres et tous les membres du bureau qui continuez le travail, l'équipe sacerdotale de Saint-Paul actuelle et plus particulièrement le curé ici présent, l'abbé Joseph Ning, pour son temps son ouverture, sa générosité et son humilité. Puissent les bontés du Seigneur abonder sur votre sacerdoce curé. Ensuite, nos parrains, nos marraines, l'ensemble des chorales de la paroisse, l'amicale des femmes, la coordination des jeunes, la caritas, le service d'ordre et d'accueil de même que le sacristain et ses collaborateurs, et à vous, communauté de Saint-Paul, une mention plus que parfaite. Merci à tous de votre gratitude. Que les bénédictions du Seigneur surabondent dans vos vies et que Dieu vous garde. Le Fils et le Saint-Esprit, allez et demeurez dans la paix du Christ. mouvement bi mu ngi def première service am en euh, fin juillet 2017 donc euh, si semaine bii nii le vingt 27 et 28 mu 72 heures yi nga xamante ne la ñuy féete sept ans d'existence jeune chrétien engagé jeune chrétien engagé nag mu ngi nekk mouvement bu nga xamante ne mu ngi œuvrer pour paroisse bi parce que depuis suñu début ba léegi jot nañu def ay réunion yi nga xamante ne dañuy dajale ay jeunes. pour servir suñuy paroisse si kaw loolu noonu moom ay services yi nga xamante ne moom la gars yi gën a ràññee mooy di gunge cortège funèbre parce que daan nañu gis si euh, suñuy enterrement dañ doon jël trop de temps pour yegg cimetière si kaw loolu noonu moo groupe de jeune bu nga xamante ne ñoom ñoo formé wu jël volontariat def premier service mais depuis lors gis nañu que loolu noonu euh, paroissien Saint-Paul yi paroissien Sénégal yi ñëpp ñu ngi koy magnifier quoi si yooyu noonu seen encouragement la ñu topp si biir loolu ñu continuer ay ay réunion tënk ay objectifs yi nga xamante ne pour suñu paroisse gën a jëm kanam parce que ci kaw loolu noonu gis nañu rassemblé na ay bërëb yi égaré yi nga xamante ne ñooñu dañaa sori woon jàngu bi mais ci ndimbalu Christa bi ñoom identifié wu nañ ci mouvement bi ba ñëw rejoindre te ci biir rejoindre boobu noonu ñu ngi màggal seen ngëm à travers service ñu dem à travers suñu programme annuel par rapport ak euh, ki ñuy dee di amal formation liturgique yi ñuy dee di amal par rapport ak mees yi par rapport ak organisation en interne parce que nit bu parewul mënoo respecter sa kàddu engagé bi quoi donc ci kaw en gros loolu moo nekk suñu taxawaay ci biir paroisse bi gën a jàppale communauté bi pour ñu gën a dund seen foi quoi. Euh, heure messe mën nañ taxaw gérer messe bi ket yi après bu ñu demee si maison mortuaire yi cimetière mun nañu gérer corbillard bi taxaw si kanam devanture bi bu ñu si maison bi dinañ gérer tâche biscuit yi ndox yi ñu servir añ yi bu ñu paree ñu prière jël suñu bénédiction daal di ñibbi suñu taxawaay ci biir mouvement moom amul différence parce que ñun a góor yi même pied d'égalité la des fois am na rôle yoo xamante ñun daal mën nañ wax di tali bi la ñu ëppale rek. mais apatali yi moom liggéey bi ñoo koy bokkoo amul tâche boo xamante ne am na disperse kii góor yi fii wala jigéen yi fii dañuy boole yëpp dóorandoo xàccandoo rek. Ah, souvent souvent aussi nous nous rencontrons des dañuy rencontrer ay difficultés parce que jeune chrétien engagé mouvement bi nga xamante ne mouvement de jeunes la donc da day commencer de 18 à jeune à 30 cinq ans donc amul amul amul amul cotisation amul dara donc. ay bienfait ay bienfaiteurs rek des fois participation rek la ñuy am parce que dañuy rendre nit service ci service yi on n'attend rien en retour comme donc c' est juste par exemple des familles des personnes de bonne volonté ñoo ñuy gis peut être gis ni action bi peut être lu ñuy def dañu leen di touché ñuy participer au niveau de au niveau au niveau du mouvement parce que des fois soutien dañ koy soxla parce que comme lu ngay lu ñuy def c'est une activité bi nga xamante ne c'est donc mooy lu ñuy wax euh, des fois dañuy soxla des moyens financièrement comme matériellement parce que des fois gilet yi ñu ngay gis ni ñu sol dañ ci am ay manquement dañuy soxla des fois des des des, nga xamante ne peut-être mouvement bi da koy soxla pour juste s'identifier pour yoo xam ne vraiment dañ koy soxla des des matériels des fois des fois nag les gens nous sollicitent wax suñuy besoin ñu wax leen des fois mu am retour des fois mu bañ am retour mais mouvement bi dañ koy soxla des fois entre nous y a ay des fois des malades. bien des cas yi nga xamante ne vraiment famille bi daf ñuy nañu nii ak nii suñu bi fa nekk dafa am besoin yi dañ koy bëgg def mais duñ ko mën parce que lu fi nekk luñ fi am lu ne dañ koy partagé maanaam dañ koy partagé su nekk dañ koy mooy lépp nga xamante ne dafa feebar wala dafa nekk peut-être cas bu critique ci mën rek dañ koy participer parce que fii nii lépp lu ñu am rek maanaam c'est au niveau de l'église participation suñu église donc c'est ça en bref cette année ci dañuy fête li nga xamante ne mooy suñu septième année ci li nga xamante ne depuis ba ñu débuté ci église catholique donc déjà dañuy def dañuy rendre grâce à Dieu mooy ci déjà lu ñu jóge nii mooy mais action de grâce bi ñu jóge ni parce que nous avons l'habitude de le faire depuis ba jeune chrétien engagé commencé ba léegi ça fait sept ans maintenant depuis lors nous avons qu'un programme muy suñuy 72 heures comme activité et moom la ñuy fêter chaque année à part loolu nous avons rien en retour parce que mouvement bi day œuvrer dans social et pour euh, pour l'église tey bés bi nag ñu ngi koy màggal parce que sept ans la ñu wax sept ans d'existence du lu du lu yomb te sept si bible bi mooy chiffre plénitude maanaam li nga xamante ne mot na quoi ñu ngi sant yàlla bu baax di sant suñu premier membre yi nga xamante ne ñoo initié euh, am initiative bi def si seen xar tànk tubéy def seen kékkalaay kattan ba ñu maintenir cap bi ba yenn membre yi nga xam ne dañu leen rejoindre te ni héritage boobu noonu ba tey ñuy fête suñuy sept ans di sant tamit paroissiens Saint-Paul yëpp di sant waa Sénégal parce que gis nañu soutien yi par rapport ak réseaux sociaux yi dañuy gis dañuy recevoir ay messages un peu partout te loolu noonu lu mag la si ñun loolu dafay tax bu ñu naroon bàyyi ñu gën a jàpp ñu gën a jàpp di remercier suñu président actuel Jean David moom mi nga xamante ne mu ñuy apporte énergie positif par rapport ak groupe bi di remercier suñu ancien président le premier président Modou Antoine gisoon nañu taxawaayam si mouvement bi def na fi cinq ans te taxawaayam durant cinq ans yëpp il a su galvaniser le troupe quoi di koy remercier bu baax di remercier tamit bépp membre ak bépp parent bu nga xamante ne bàyyi na doomam mu ñëw bokk si mouvement bi. Pas de Dieu, pas de vie, signe de l'amour du Seigneur, pas du ciel. Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs.